déedéet xam nga man lu ëpp fukki at maa ngi maa ngi wax ne Macky Sall ñi mu àndal ñu ci bari kenn jubu ci seen bakkan lañ topp ñu askan wi amaanaka nag boo nekkee ay nit nga leen koy wax dañuy jàpp ne intérêt personnel lañ te man chef d'entreprise laa man Macky Sall kaasu fi Touba mosuma koo may mosuma yaakaar dara ci moom yàgg naa toog sa palaato ak yeneen plateau di wax ne mhm. man ku dul yàlla suñu borom ak su may barke waajur yaakaaruma la donc nit boo ànd ak moom te munoo koo wax dëgg damay jàpp ne ànd bi du sincère te ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànkoon euh, réew mi nekkoon nañ yor doxin wu ñaaw boo xam ne ku am ngor alors ku ragal yàlla ku am looy seet nga yërëm askan wi da ngay xam ne ñii ànd ak ñoom erreur la. ndax jëlee réew en 2012 ak fi ñu koy indi en a eu beaucoup de problèmes ci diggante bi yoo xam ne le régime a su tenir am na ay critiques après am na lu mu def ci réew mi. am na lu mu ci liggéey loolu. ku ko waxul it waxooloo yàlla. Mhm. am na lu mu liggéey waaye malheureusement xam nga Macky Sall ci xel bi. xa ay xalaatam day mel ni Lionel Messi waaye ci ay doxalim buy matérialisé day mel ni Mbaye Diagne wala Crépin Diatta maanaam li muy xalaat baax na loolu waaye bu koy bu koy matérialiser mhm. day am ay jafe-jafe da ngay jël loolu lan moo ko waral une mauvaise équipe à sa côté mauvaise équipe parce que ñi ko topp Macky Sall li ko daaneel li ci ëpp transhumant yi la mhm. maanaam ñi nga xam ne ñoo ko doon xalab démb ak barki démb dàq ko PDS di ko saaga ñooñu xamuñu yuqu APR ñooñu ñoo ànd ak moom pour ay intérêt parce que ñu ci bari ci ñoom amuñu xëy amuñu ngont ñoom ñoo ko topp nekk ay lodatoram duñ ko wax dëgg xamuñu askan wi jafe-jafe yi ñuy dund parce que man ñu dëkk ci banlieue bi mhm. di yeewu di gis samay morom samay moromu wéyjur samay nijaay samay bàjje nekk ci ay jafe-jafe ma nekk jafe ma am dund jafe-jafe yi ak ñoom kooku boo mënee toog da ngay xam li nit ñi di dund waaye ñi nga xam ne dañoo transhumé ñëw ci nguur beew xamuñu xamuñu xamuñu xaalis mhm. jël alalu réew mi jaabaa jonge donc du ñu mën a yërëm nit ñi te sànq maa la koy wax nit ñi boo leen bëggee jiite da leen yërëm boo leen yërëmul mënoo leen jiite